ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وراسقنا مولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا قدم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موديها أو تحيير حرف أو تقديم أو تقن أو زيادة أو نقصان أو تحويل على قيل ما أنزلت أو ريب أو شك أو تعجل عند تلاوته أو كسل أو صراط أو سيق لسان أو وقوف بغير وقف أو إدقام بغير مدقم أو إسهال بغير بيان أو مد أو تسديد أو همسة أو جسم أو هرام بغير مكان فاكتب منا على التمام والكمال والمهتم من كل الحال فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواقصنا يا مولانا وارزقنا فضل من قروا محديا أقاهم الأضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير وسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا أن من القبلة والكسلان وأمنا يا رب من أصحاب القبر ومن سؤال منكر ونكر من أكل ديدان وبين وجوهنا يوم البحث واعترقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكنا في وسط الجنان يا رب وارزقنا جوار سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يا رب وارزقنا جوار سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان أستجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان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 اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا ونبينا محمد بحق القرآن يا ربي ارحم جميع أمة سيدنا ونبينا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا قرينا وفي القبر منسا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 allahuma arzuqna bil alifi ulfa wa bil baa'i baraka wa bit taa'i tawba wa bi thaa'i thawaaban wa bil jiimi jamaalan wa bil haa'i ikmatan wa bil qaa'i qilaanan wa bid daali dunuwan wa bid daali dhakaan wa bir raa'i rahmatan wa bi zaa'i sulfatan wa bi siini sana'an wa bi shiini shifaa'an wa bi saadi sidqan wa bi daadi diyaa'an wa bi taa'i ta'anatan wa bi zaa'i zafaran wa bil ayni ilman وبالغين قناء وبالفاء فلاء وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم معيثة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء إداية وباللام العلف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله طاهرين أجمعين اللهم يا ربي اجعل في هذا المكان وبي من جعلت سببنا هذا فرجا ومخرجا يا رب اجعل في هذا المكان وبمن جعلت سبب اجتماعنا هذا فرجا ومخرجا ببركة سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام على نوء في العالمين سلام على نوء في العالمين سلام على نوء في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون salaamun ala ali yasin salaamun ala ali yasin salaamun ala ali yasin salaamun alaykum tibtum fadxuluha xaalidin salaamun alaykum tibtum fadxuluha xaalidin salaamun alaykum tibtum fadxuluha xaalidin salaamun hiya xata matlai alfajr salaamun hiya xata matlai alfajr salaamun hiya xata matlai alfajri wa salaamun ala almursalina fi ma jacaltana fi ijtimaina haada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 وعلم شهود سيدنا ونبينا محمد طب القلوب والضوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصار وديائها وقوت الأرواح وشرابها الفاتح الخاتم ناصر الهادي صلاة تحب وترضى صلاة تعرفنا وتوصلنا بها إياه صلاة تفتح لنا بها أناب الردى والخير والتيسير والتوفيق والسلامة والهداية والبركات والقبول والسعادة والمغفرة والأرزاق وتغلق بأناب الشر والشقاوة والتحصير والخسارة والهلاك والأمراض وسكتة الدم ودقة القلب وموتة الفجأة وميتة السوء يا رب بسر صلاة الفاتح افتح لنا خيرا على الدوام بجاه يا بدر الأنام وبجاه قاتم لما سبق أختم لنا بالقاتمة الحسنى خاتمة الناجين الراجين qul yaa ibaadi lazina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillahi inna allah yaxfiru sunuba jamian wa bi jaa'i nasiri alxaqi bilxaqi unsurna ala jami aadaina unsurna ala jami aadaina unsurna ala jami aadaina nasraka qiila lahum قال أتتقتنا أسن خلا أعوذ بالله وبجاي هادي إلى صراطك المستقيم اهدنا صراط المستقيم يا رب اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنمت عليهم من النبيين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 alhamdulilahi rabbil alamin yéen a ngi ko def waaye ñun ñoo ko moom ndax njaboot bi ñun ñëpp ñoo ko bokk suñu njaboot ñoo nekk ci dëkk bi njaboot bi yëpp ñun ñoo ko bokk xale yi dajee ci dëkk bi yëpp suñu baax lee ñun baax le bu ñu yàqulee itam ñun ñoo yàqule kon yàlla na yàlla sàmm leen aar leen jubal leen tey dafa teg leen ci yoonu siraatal mustaqiim bu dara damm ci ñoom yàlla bu dara damm ci ñoom yaakaar ji ñu am ba indi ko fii yàlla nañ ci am dam ci barke Seydi Fujur sallallahu alayhi wa sallam vice premier vice président moo ko teewal fii muy Coly Diouf Ndaw moo ma jox kàddu bi ñu ngi rafetlu jataay bi di sant suñ kilifa yi di rafetlu seen taxawaay ndax mënoon ngeen ñu xeebal bés bii nii mais bés bii dafa nekk bés bu am solo baax na ñu leeral ko ci contrôle président ODCAV ak inspecteur de sports laay waxee phase nationale yi affaire yi football la ñu waroon ko def muy waa Sénégal yëpp ñoo ko bokk ñu tànn région Kaffrine ci quatorze région Sénégal yi ne moom lañ koy defee ci biir loolu Koungheul moom am ci wàllam boo xamante ni moom tamit lu muy organiser fii la ci biir Koungheul ci département Koungheul kon dafay am solo ñu réussir organisation bu mel noonu ndax nekkul wàllu football bi rek moo fay teew moo fay feeñ ndax euh, développement dana fi feeñ affaire économie dana fi feeñ ndaxte ñi fiy ñëw lépp lu ñuy jënd fii lañ koy jëndee ci dëkk bi Eh, ka doon liggéey ci Jakarta bi danga nga déplacé ay nit di leen yóbbu ci transport foofu day wàllu woowu day gën a dox lépp lu ñuy jënd ci nduggu fii lañ koy jëndee ci marché bi kon loolu dana doxal économie ci biir Sénégal loolu maanaam wàllu rayonnement su ko defee danañ ko ràññee ci mbiru football ràññee yëpp ah kat dëkk bu neex a organiser la nekk loolu mooy kàddu yi nga xamante ne moom lañ ci doon wax ci wàllu sport di wax ne nag président du conseil départemental nee na moom mu ngi ci seen ginnaaw. ndax lépp loo xam ne day développé Koungheul moom du nangu kenn jiitu ko ci département bi. gannaaw moom lañ tànn jiital ko ne ko yow mi yaa ngi lay ci conseil kon fas na yéene incha allah accompagner leen ci ba ñu am ci ndam li nga xam ne moom lañ daan ndax organisé woon nañ fii ay phase waaye wax dëgg yàlla inspecteur kadam xam na ci dara amoon nañ ci ndam bu baax bii tamit ñu ngi ñaan yàlla comme ni ko sëñ Abdou Aziz euh, Abdou defal ñu ci jàmm. jàmm ak salaam ba nga xamante ne dinañ réussir organisation bi am ci ndam bu baax a baax waaw kaddu yooyu la ma président waxoon ne naa ko jotale donc ci turu conseil départemental jërëjëf. jiite nawetaan Sénégal moo joxe ndigal ne balaa ñoo dëdmal dara ci programme bi den wàcce kaamil ak suñ kilifa diine yi bi mu amee aussi loo gis dafa am yoon dafa am buntu ma jaar sama nijaay Adama Camara ne ko nag dañ bëggoon wàcc kaamil comme yàlla def na kuy jaar ci imaam yi aussi ci lay jaar moo tax ma wax la ko ngay musin macha allah ñu ràññee ci dëkk bi moo ko waxee aussi moom ci taxawaay am solo jël téléphone am ak bi yëpp moo imaam Mbaye Guèye coronné ko ba tey lii am moom ni jaay laajo gërëm bu baax ci turu ONCAV waaye gërëm aussi ci turu ODCAV bu bi nga xam ne yàlla def na ñu moom lañ gisee gërëm imaam Mbaye Ndiaye papa Ndiaye suñu papa ak ñoom imaam Abdou Madi si ku lim juum doo juum sa waaye du matal waaye ñuy gërëm ñëpp sant ñëpp ci teewaay bi wax dëgg yàlla tey li ma fi dégg wax dëgg yàlla seet na xool ndax la prière est l'arme du musulman jullit ngànnaayam mooy ñaan kon boo booy dëgmal mbir njëkkee ko ñaan da am yaakaar kon yàlla yàlla nangu ñaan yëpp yàlla may ñu fan gudd ak wér-gu-yaram bu baax li ñuy dëgmal yàlla dafa ñu ci jàmm ak salaam ak dal waaye di gërëm tey ki nga xam ne tey mën naa xam ne moo fi toogal le préfet du département muy inspecteur Moussa Karam lii aussi ba ma jotee ndigal man lu ma jotee ndigal ci ay kilifa maam am ay kilifa ci département bi damay dem ba si ñoom waxtaan ceeg ñoom waxtaan ceeg le préfet du département mu rafetlu ko bu baax waxtaan ceeg conseil départemental yëgal leen ko waxtaan ceeg la mairie de Koungheul parce que c'est collectivité territoriale tey ñoom la yàlla jox baat ci département bi ak ci dëkk kon man lépp lu ma waaye jox ci ndigal balaa ma cee teg benn jéego dama ci waxtaan ñu ma ko séq ndax ñoo suñu kilifa tey wax ko. président du conseil départemental dépêché une délégation muy le premier vice-président ak son chef de cabinet ñu ñëw fekkee aussi préfet département ndax yebal na fi inspecteur Moussa Karam mu teewal ko dafa nekk réunion am solo waaye su ko mënoon tey macha allah kenn du ko jur ndax ubbite jumaa yëpp yàlla def na mu koy teewee gërëm ñi ma ko séq sama naataango muy waa ODCAV yëpp ak bab bi tey bureau bi yëpp macha ñëw neen fekkee si lii ndax ndax lii ku fi ñëw rek man ndax sa bopp nga fi ñëwal ndax fekke ñaan ne amin ñaan ko nangu yàlla rek ko xam kon lii wax dëgg yàlla sant yàlla ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp waaye di gërëmaat suñu kilifa mooy El Hadj Amadou Kane ndax ay ndaw fu ñuy daje lu ne mën na faa waaye moom macha allah moom am xarañte ne balaa ñoo mal dara nañ ko njëkkee ñaan ak suñu kilifa diine yi kon loolu sant yàlla kon ñu ngi gërëm bu baax la président de l'ONCAV El Hadj Amadou Kane gërëm le président de l'ONCAV de Kaffrine El waaye gërëm ñi seq nawetaan ci département bi yëpp ak kilifa yëpp mu waroon naa sax mën a bañ ñàkk jël kàddu ndax alaaji Adama Camara mi suñu nijaay suñu kilifa jiituñu ci wàllu sport ak lépp tënkal nañu wax ji gërëmal nañu mbooloo mi waaye da fekkee den gërëm ñëpp sant ñëpp waaye di gërëm aussi suñu frère suñu rakk suñu xarit am Amadou Matar Sarr bu PDG xibaar bambu ndax wax dëgg yàlla bañ dëgmalee mbir mi ba léegi fu ñu taxaw gestu gis ko suñu wet dafayuñ ko benn dërëm Koungheul ko ñor département Koungheul ko ñor kon xibaar bambu jërëjëf jëf ci taxawaay bi ndax lii am na solo tey bëri na ku fi ñëw ci xibaaru Bamba nga ko xamee pour ñëw ci jotaay bi ndax bi leen ko waxee yéen def communiqué bi yéen def lépp kon gërëm nañ ñëpp sant ñëpp di ñaan daal lii ñuy dëgmal yàlla leen diggee ci jàmm ñu jeexal si jàmm képp ku fi ñëw yàlla nga ñibbi si jàmm muy équipe yi jógee Matam Thiès Diourbel tey macha allah ñu bëri ñëw ñëw nañ démb France nañ Koungheul kon ñu ngi sàkku ñaan ñu ñaanal leen ñu nekk fi si jàmm dellu si jàmm ba kenn bañ cee loru ba kenn loolu rek moo doon kàddu ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëmaat di fëddiwaat suñu kóllëre suñu digganteeg suñu kilifa diine yi ndax ñu yéen rek leen am fuñ toll ñu leen di safoo dee ndamoo tey macha allah lii bu paree dañ ko yónnee Amadou Kane dana ko gisal boppam dana xam ne macha allah quatre départements yi ci région de Kaffrine dañuy wax dëgg yàlla Koungheul kan demul ñu des loolu bu nga am macha allah dañ koy gërëmee suñu kilifa diine yi yal na yàlla yàggal taxawaay bi yàlla wéral baat yi yokku cër gi yokku wér gi ak man salaatul faati ayatul kursi li ilaafi Quraysin تلك ببراهيمها ولا بمثلها بركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun wa salaamun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin